salaamaaleykum maa ngi tudd Abdoulaye Dramé ñu gën maa xam ne Abdoulaye Barke waaw mbir mi moom daf ñu bett te bettal gi di mujj naa jur ak san ndax lenn rek moo ñu may chance muy aji mu jur tombeel ndax ñun bu àjj ma jotee bu treize heures ba jot ñun dañuy pause léegi nag buñ pausee ñun dix personnes lañ fii nii lañ taxaw fii nii ñu nekk fii nii si buntu magasin bi di waxtaan di waxtaan di waxtaan ba dañoo jékki-jékki rek ñu dégg benn bruit buy ñëw te si suba bi gars yi commencé ne si kaw di dóor ay marto ñi ñi ngi waxtaan si lu mel noonu ba athlète soudeur bee ñu dell sax man dañ ma woon dama Ablaye saa bu ñu toj balcon bii nii da nga déplacé woo da nga ko wax sa gaayam après ñun ñu waxtaanee loolu ñu ne saa boo déggee daal buru bi rek da ngeen daw ñun six personnes bi ñu déggee buru rek dañoo jàppalante di daw ba bi ñuy daw sax man benn waaye moomu dóor loxoom fii nii moo waral sama bët ba xaw a néew am na kenn ku mu fekkoon ci biir ñu koy wax Ousseynou ndax kooku itam li waral affaire bi am itam nopp neexul léegi waaye lenn rek moom itam bokk na li ko may sax dafa yuuxu léegi bi mu yuuxoo ñun ñu dawee nañ fee ba si yegg beneen magasin ndax magasin ñaar lañ léegi bi mu yuuxoo beneen booy bi ne Ousseynou mu ngi ci biir am na beneen waaye boo xam ne itam ñun moom lañu ragaloon sax ne moom moo nekk ci biir. ñu koy woo téléphone yi itam mënuñu koo jot loolu gën ñuy jaxase waaw ñu amoon fi benn problème boo xamante ne maanaam bi ñu wooyee waa jot jotuñu ko ñun moom ñun mu ngi ci biir kenn xamatul looy def usine yi di yuuxu ba suñu mbokk soudeur yi ñoom ñoo daw ñëw dajjil ñu porte bi après bopp usine du feeñ ñu doog jàpp jàpp si bopp bi ñoo di mu mën a génn waaye nag waaw am na ay gaañu gaañu nag waaye xam naa gaañu gaañu yi daal métti daal ndax nit koo xamante ne dal bi ci kaw troisième kër gi troisième léegi foofu la affaire yi bàyyee ko fu jaar rek dafa jaar deuxième dal ba mu wàcc mu ñëwaat ba ci première bi di mu wàcc première bi suñu dëkkandoor bi fas moo ko moom te moom ci dafa liggéeyi woon bagage tam yeeg léppam dara génnul gis ngeen armoire bi mu ngi noonu di lang sax kon gannaaw gis ngeen armoire boobu noonu di lang kon buñ ne dara génnul nit war na ko mën a gëm affaire yi daal doon na loo xamante ni bett nañu trop del daal di santaat yàlla ba mu tombé ak ajuma ndax bu doon ajuma machine yi ñaari machine yi day toog ci beneen côté bi kii toog ci beneen côté bi machine bu ne ñaari nit ñoo ko kon bu ñu demee ba ajuma jot ñii génn mu def kenn si biir ak ñun ñu leen fekk si woon di waxtaan ak moom kon ajuma ji bokk na ci li ñu sooy ak suukar buus loolu daal la affaire yi demee daal waaw jamono bi sappoor ñëw na après woo nañ sappoor sappoor ñëw nañ ko jël yóbbu nañ ko hôpital waaye daal jamono bi am na taw deex daal après daal loolu lañ déggaat waaw yi it amoon nañ leen lu ñu jaaxal muy ñu doon toj nekk ñoom bi affaire bi daanoo rek ñoom dañoo daw dem après ñu ñu amaat beneen problème gannaaw bi ñu sooyee ñu ne am na ñu doon liggéey ci kaw te ay doomu aadama lañ ñu ñun ñu jaaxaloon ñu trop ñu fan lañ war a ba après la benn waay mu ci woo borom kër gi mu ne ko yi woo na ma nee na ma ñi fi nekkoon de ñoom daw nañ ko def am na benn moto boo xamante ni moom lañ ko bàyyi ñun gisuñ ci kenn te daal bi bi muy wàcc ñun ñu ngi taxaw bii ni ci biir magasin bi lañ nekkoon dañ ne dañuy defaraat kër gi léegi bi ñu defaraat kër gi xam naa marto yi ñu doon dóor te buñ tojee garawaay bi ñoom bu ñu ko wàccee dañ ko doon bàyyi noonu ci kaw rek xam naa loolu nag dafa dem ba poids deuxième pàcc bu ñëwaat palmiers yi di bombardé yëpp waaw. ah matériel moom wax dëgg fa yàlla bëri na ndax machine broderie moom bu ñu la nee machine broderie boo xamante ne ñee la 15 set la ñu ne ñaari machine la loolu ku xam machine bi rek moo ci mën a wax xam naa loolu daal mënu ku ñuy wax xaalis bi ñaata la dañuy bàyyi ba pare ba xool lekk lépp ndax machine boo xam ne bagage yi mu ngi daanu ci kaw machine boo xam ne bu amee problème fii rek da ngay jëli keneen. ñëw dépanner la ko kon xam nga ne machine ñaari machine bagage yi daanu si kawam ba ñuy wax daal il faut ñu bàyyi ba la dem ñu mën a xam machine bi lan moo si yàqu waaye pour l'instant nii moom mënu bu ñuy dama xëy dem liggéey ba ay côté 13h ñu woo ma avancé immobile bi muy daan euh, dafa amoon ay travaux ci kaw au dafa amoon ay travaux au trois troisième parce que dañ la dañuy dañ la doon dañoo xam ne dañuy dal mooy ça fait uh-huh. maa ngi jaar di leen toog na leen mais dal bi ngeen di kii nii mbaa du am effet rës. bon ñu ne non on croit pas foofu ñu ko nii. ba tey à ma plus grande surprise ñu toog ay côté treize heures ñu ma téléphone affaire bi rës jógee deuxième wàcc ba si suuf ba ci magasin yu nekk suuf moo am ay dégâts collatéraux. waaw uh-huh. comme ni ñu koy waxee voilà semence armoire bi yàq na lal bi bien yi matériel yi fa defoon télé rajo et cetera yu yëpp frigo yëpp. maa bu wàcc suuf. effectivement ñaata at fi dëkk. bon ça doit faire plus de dix de dix mais kenn kenn nekkul woon ci kër gi. non kenn nekkul woon parce que moom daf ñu joxoon sommation pour dire vrai aussi. pour génn joxoon sommation pour ñu génn mu defal. ok mais kaay bi dañoo xalaatoon na comme que troisième bi moo am problème rek. dañoo attaqué woon affaire bi quoi na ko nag ñu nekk troisième rek ñoo am problème ñun ñu nekk si suuf amuñu benn problème donc waru ñoo mën a génn ci loolu la nekkoon yow rek yaa fi desoon ah man maa fi desoon ak ñu nekkoon si suuf kon kon quatrième génnoon nañ troisième génnoon nañ ñu mais dafa ñëw commencé travaux kon actuellement mën nañu wax ne amul mort euh, premier deuxième troisième quatrième. il y a des eu des blessés ñu nekkoon suuf di liggéey. ok euh, ok waaw euh, pour le moment daal moo fi nekk sinon daal dégâts matériels moom bëri na. bëri la c'est ok voilà loolu la tant que ñuy xaar pour am. ba lii am ci quoi. ok ñu des ni suuf aussi am na benn boutique bu fi nekkoon il paraît que gars yi bëri yàqule nañu matériel yi. bien sûr bien sûr. mais malgré je crois que su amul doon ci kaw ba ñuy dóor. Uh-huh. ba wàccee kii bi peut être conséquence bi ñuy doon. d' accord. on sait jamais parce que dañoo daaneel bële. ok affaire bi wàcc wàcc pour man il a comme que affaire bi ñoom dañu ñoom dañu dossier bi dañ ko dañ ko dañ ko attaqué woon man warutoon warutoon aar. yoroon xaar ba ñu tuddee dossier bi ñu doog commencé liggéey mais vidéo ñu dossier bi ñoom ñu commencé liggéey bi parce que pour man lii mooy di conséquence ok mais mais amoon na ouvrier yi nekkoon ci kaw doon liggéey. amoon na ay ouvrier yi nekkoon ci kaw il paraît que génn nañ ko daw dem nañ. ok amoon na ay ouvrier yi nekkoon ci kaw ñoom génn nañ daw. ok mais. merci yàqu-yàqu bi moom vraiment c' est énorme. ok ok ok merci beaucoup. ok amul problème. Thank you.